Mouhamadou Fadil Fall Abdourahman Touba Darul Qafour mbokki taalib yi ñiy déglu lu jëm ci màggalug Darul Qafour gi nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba mu baax mi Xaadim Rasul mu tudd turu dëkk bi gannaaw guerre mondiale bi muy 1919 yónni sëñ Ndam Abdourahman lu taalib mag bu baax bu dëkk Ndam. ak sëñ Masamba Mbacke mi rakk boppam na leen dem leen génn saalixu foofu mu gor maa ngi ko jox tur wi muy daarul xafuur muy dëkkub aji jéggalaakoon ji kon kenn ku ne ci sa dund ñu jéggala ëllëg sa kanam borom nga bëgg kon fi nga dëkk ci àdduna bu fekkee aji ki jéggale maanaam moo ko moom nga dëkk fa kon xel mën naa dal sëñ Saaliwu nag rakk Cheikh Ibra Fall la bu mbokkal ndey ak baay di kenn ci kàngam yi ma ngi toppoon Serigne Touba ridwaan alayhi ba Serigne Touba gërëm ko sooy xaar année bi mu ganee àdduna ko baax ki sëñ ba werante am na mille huit cent cinquante deux ñu ne cinquante trois waaye lu mën a am cinquante deux bi moo gën a wér Cheikh Rafal cinquante cinquante huit la ganee àdduna ci njabi wàqi ci diggante woy juram yi Ahmadou Roqaya Fall ak soxna bu njaay bi nga xamante ne nag sanc ne fii fekk sëñ bi seexal na ko ba yeewi ko moom magam ju baax si ñu jógee woon Thiès 1915 sëñ Tuubaa ngi sañ ci njaareem ci exilem bi mu fi jógee tubaab bi dëlal ko fa 1912 mu jiito leen fa ñetti at lañ am ndigalu ñoom daal di fa jóge dem kër Cheikh Rafal Makka looy lay maam Saliou foofu la jógee ñëw fii ci ndigalu sëñ tubaa mu tudd turu dëkk bi bi mu sancee fii nag dafa am jamono wax nañ ne magam ju tedd ju baax jooju li indi màggal gi yebal ñaar doomam muy sëñ Moussa Fall mi taawam ak sëñ Modou Mbend mi jur xalifa bii di sët tey di sëñ am di Modou Mbend dem leen daru xafoor ci saaliwu sama rakk ju baax ja noonu lañ daan wootante ñoom ñaar waaye bu leen jéem a yeewi ko wala ngeen koy laaj dara lu moo leen yeewi noonu lañ ko defee ba mu ñaanal leen ñu delluwaat ci Cheikh Fall Njaarim ñii ne benn at la ca teg ñii ne ñaar mu del si fa daru xafoor ci ndigalul maam Cheikh Ibra ne sëñ saaliwu génn ànd ak sëñ Assane Awa Diakhaté mi nekk ñetteelu xalifa moom ab safoor la woon ni sëñ am di Modou Mbend mais sëñ Modou Mbend mais doomu Cheikh Rafal ñu ñëw fii ndokk nekk tey ne bi ñëwee tatal ak përëm na yor ñii ne xànjar wuute am na ci ne mu warub diir na ah, xanaa jaaxle ngeen de ñu ne tekk mu sotti fam ndox ne jumaay sëñ Bamba jooju ko sun borom jox ndigal ci baax yoonam sa sallam war ko am dëkk mu tedd bee ñu ko jëlee muy Touba doj yi muy carrière bi fii la doj yi ne fi la ko dencoon ma di leen ko won bi ñu waree liggéey jumaa ji jamono Sëñ Moustapha toog ñu koy fonde foofu lañ joxoñ moom sëñ fallu nee nañ ko gas fa la bu jógee bi sëñ di nekk nag ci àdduna mbégte moom amoon ca euh, loolu nga xam ne mooy jumaa ji war a am Touba ta taxaw taxawaayu li nga xam ne mooy màkkatal mukarram ndax sëñ bi lu mu wax lu ne da koo bind dana xaju ilayya inna fi l bayti kaaba wa saaxibul bayti indi wal xima xurumi lagg leen daw ñëw ci man namu ci ab aj am ngeen aj ndax kaaba ga néeg boobee mooy sama jumaa ji di nekk Tuubaa ëllëg te it boroom kaaba gi yonent mu ngi fi deloote na allamani bi xawdihi illa ya rafian liyal bayta mardiya xamal na ma wommat gu mu wommat màng gu màng kaaba gi ak ka nekk ca kaaba ga ci ma ci mën a war a mooy ko tedd saa sallam ñu ñëw fii ngir sant ma gërëm ma kon loolu dafa taxaw taxawaayu loolu mu wax sëñ bi nag dégg ne ko dema ko màggalal yow sëñ Saaliw sëñ Saaliw ko màggalal du adde waaye weer wenn wu ci ne ñeenti xabboon lay rey wàcce fi kaamil alquran ba jant suñu yeewi mbooloo mi ñi def na ko fukki at ne fukki ak benn bi mu wàccee liggéey nag sëñ Fadilu bi nga xam ne yu bari moo ko sopp ci yoonu murid ba ci màggal gii ñu indi Tuubaa moo ko def ki nga xam ne mooy ñaareelu xalifa ki nga xamante ne mooy Mam Saalix toog ñeenteelu xale bi sunu baay topp muy sëñ Abdou Fall Saas ñu wax Abdou ñetteel ba kooku la yebal ne ko demal ci sëñ fallu ñi ne addi la yóbbu ñi ne sëñ bee ko soxla woon ne bi mu demee euh, sëñ mu ne ko ndax Baye Saliou am na bés mënta ñàkk bis de loolu ma amoon ci ndigalu sëñ Tuubaa ngir euh, jumaa ji ñu ko ko teeroo ngir mbégteem man tooxal naa ko man Saliou mënta ñàkk bi dañ ko def ci fukki fan ak juróom ci bu baraxlu ndax warta cate daa war a diggu di tibb xéewal ndeyjoor ak càmmoñ ngeen koy jëriñoo te lu ngeen xamut saa bu ngeen def màggal bu ngeen xëyee day yendoog yéen ba guddi wala ci ëllëg sa mu doog a dellu ba saxul man ca Touba ci Sëriñ Touba sëriñam ba loolu moo indi màggal gi biñ ko dalee def ak léegi daanaka 63 la ba suñ joññi tey boo koy xool at yi xaw naa takku fi mu ne ki fi toog nag di ab xalifaam mooy ki amoon ndigal loolee muy sët bu njëkk ci sunu mag yi toog xilaafa muy seen Assane Fall muudu maam lii daal am na ci ko ñu ci woo bépp julit bépp taalibe li ñu war a wax ci daaru xafoon nag bari na lool waaye ci tënk rek eh, loolu foofu la ñuy yemandi. màggalu ren gi nag dafa yéeme ndax mam Saliou àllarba eh, talaata la wàcc liggéey ñu denc ko àllarba màggalu ren gi dëppoo ak àllarba la mu waxoon ne moo ma fi jógee danaa wane eh, Touba loo xam ne ca mën la njëkk ci man lay muy dara dootul am lu mel noonu nee na biñ koy denc xaalisu nguur mooy génn ca barab ba. Ah, ci lañ jënd yi ñu fàttewoon fii war ko caa waajale ah, a nga xamante ne tam maanaam moom mooy jullee gaat ay kiimaan am na ca ndax ku ñëw xamoo looy wax lu ci ne sëñ Fallou lañ woo mu ne ku ñëw it su ma ñëwee def ni ñëpp bàyyi saali wooy wane kiimaanam yooyu ndax loolu daf ko da koo waxoon daal yu bare bëri xam ne dund naa juróom-ñett fukki at ak juróom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 Mourchid TV ak sa chaîne bi topp tànki sëriñ bi.